yàlla dafa tànn aw gaay bëgg leen a leen a dénk alxuraan euh, am na ñoo xam ne daf leen di dénk lépp euh, mu am ñoo xam ne daf leen dénk tuuti mu am ñoo daf leen dénk xaaj bi kenn ku nekk lam la cay dénk nu ñu def ba ne bokk ci nag mooy góor góorgóorlu pour jàng ba xam ci dara wala góorgóorlu ba sa njaboot xam ci dara loolu ñu ci xam dara li muy tekki mooy kon ñoom bokk nañ ci ñu yàlla dénk alxuraan saa fi ñëwee yëg ne nekkal yàlla rekk wóor ndax buñ la nettalee démbi fii bi mu fii ñëw ànd moom doŋ ànd ak benn taalibe ñaar léegi suñu ko wootee mbooloo mu toll ni ñëw fi loolu li muy tekki mooy ku nekkal yàlla <clears throat> yàlla nekkal la lii rek la nekkal yàlla di tekki ndax suñu borom ndax ci alxuraan ji ñu fi tax daje wa qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu neel nit ñi nañ liggéey rek te bàyyi maag siiwal gi bàyyi maag wane gi danaa ko gis man yàlla bu ma gisee wan ko yonent bi yonent bi wan ko mboolom julit yi waxu li amalu fasiyara laahu amalakum wa rasulu loolu lay tekki fii tabaarakallaahu képp ko xam ne ki ñëw nga fi daara Alxuraan li mu def ci ab julit la ci jiitu mooy dindi ak rëy ci moom la jiitu mooy dindi ak ci moom bu ñaar ba la ci jiitu mooy doylu bu ñetteel ba la ca tege mooy nitu daar du pelamtu pelamtu mooy ku dul suur mukk wala romb nga jël bu ñeenteel mooy day am jom bu juróomeel mooy bu amee jom ba noppi it lum xam ci lu baax dana ko def lum xam ci lu bon dana ko moytu loolu la daara def ci nit kii indi doomam ci daara ñaar da ko fay indi pour mu mën koo tari mu jël ko yóbbu dafa bëggoon bu ko fa indi mën koo tari ba nopp mu bàyyi ko fa temps wu ñu mën ko naan lii baaxut ak lii baax na ndax mu mën a soppi ko ci dunduk àdduna gi tarbiya bi ci war a nekk war cee nekk temps boobu nag ñaare la nit dul daara dul am ci daara ndax lan ki koy indi ci daara da koy yàkkamti bëgg mu tari ba dem loolu mooy waral léeg-léeg nekkin wi di gàtt temu ren bi ni tañ weesu woon rek bu ñu ñëwee nu bëgg a jàngat li alxuraan def ci penc bi bëgg a jàngat ak nekk nu mu fi nekkee thème bi dikk na ci jamonoom ndax nit ñi xamut luy daara man cee doxee xam luy daara benn ci organe de presse yi wala ci seen teewaay fii waaw teewaayu nit ki fii dana tax mu dégg message bi euh, organe de presse yi danañ fexe ba nit ñi dégg message bi ñuy fa dañoo am seen jumtukaay di fa rek waaye bu fekkoon ñun tam fu nu nekk keroog bañ wootee concours pour bind alxuraan keroog bañ wootee ñu wootee ndaje mi ndaje yu ni mel su bari woon ñee seen ndaje yi du mel ni mel waaye ku gisul lii rek fee ngay dem loolu moo ko waral kon yi daa war a bari ci réew mi daa war a yaatu dañ ko war di ànd ñun ñëpp kenn bañ koo xeebit fu mu ko dégg rek loolu la jàppoon bàyyi ko sol sol daal ñëw nekk ci ndax mu gën a mel ni mel ndax Euh, laal xuraan waxoon ne. Euh, kullu xisbin bi maa ladayhim farixuuna moo koy tekk jafe jafeñ li ci jiitu. mooy ceetaan mi ñuy état di ceetaan. bu ñaaral mooy. teg gi loxo gi parent élèves yi teg parents teg gi seen loxo. ba ca tege mooy ñàkk ay locaux. ba ca tege mooy wér-gu-yaram. ba ca tege mooy lekkum xale yi. juróom yi daal buñ ko fajaloon daara daara commencé noyyi tuuti donte du yëppam nag